oui effectivement loolu solution la solution la sax bu baax parce que ci. yéen moom moo leen gënal. mu euh, mu euh, mënuma ne moo ñu gënal mais bokk na ci ci li ñu gënal parce que si suñu amee un privé boo xam ne bu xam vraiment bu ko mën a exploiter parce que amoon na fi parce que li ñuy wax ni xam nga liaison maritime bu Dakar Ziguinchor dafa yàgg. Mm-hmm. amoon na fi ay bateau passé tu ay catamaran. Mm-hmm. ah qui faisaient quatre heures de temps Dakar Ziguinchor c' était des y avait au moins quatre petits de catamaran il bi nga xam ne bi ñu ñàkkoon bateau noonu avec les événements de le euh, Joola il y avait des bateaux privés yu doon daw Dakar Conakry kii Carabane 1 Carabane 2 Dakar Conakry kii donc euh, li ngay wax ni am na ñoo xam ne ñaan nañu ko moo ñu gën a dama dañ ne su fekkee ne COSAMA bi ñu dénk mbiri parce que état bi COSAMA c'est un consortium ñi ko bokk dañu bare ay port ay COSEC ay ñoom y a des des kii des opérateurs économiques ñoom CCBM mhm. Serigne Boub mhm. donc ko bokk ñu état jox leen ko des partenaires privés pour ñu exploiter la ligne vous vous rendez mhm. su fekkee ne ñoom fu mu nekk nii mënatuñu exploiter laañ comme il faut parce que sincèrement arrêt bateau bi pour mooy wax la tuuti c'est pas uniquement mois de juin ba léegi ne euh, arrêt arrêt arrêt arrêt bateau bi dañu dañu yàgg dañu yàgg am yaay beaucoup d'arrêts antécédents ay temps Covid avant Covid il y a beaucoup d'arrêts antécédents te li ma lay xam est que xam nga arrêt yooyu lan lay lan lay percuté moo tax ñoo préféré des fois un privé bu ñu jox ay garantie wóor parce que bari bi fu mu nekk nii euh, am na arrêt yoo xam ne li ma lay woon am na ay Sénégal yoo xam ne gëmatuñu bateau bi de même su dowaatee par manque de confiance ils prendront plus le bateau qu'est-ce que pourquoi parce que y a le syndrome le Joola parce que dañu naan bateau bi mu tax ni boobu léegi est que normal na est-ce que moo tax ñun on préfère comme ni nga ko waxee su fekkee ne am na privé bu sola ko ça fait partie de nos souhaits aussi bu mhm. solvable mais il y a des Casamançais des Sénégalais il y a des gens des personnes privées qui ont les moyens qui veulent exploiter cette ligne boole ngeen ko si revendication yi wala non boole ñu ko si revendication yi parce que balaa ñu koy boole ci revendication yi li ñuy ñu yor nii nañ ko togg ba mu ñor ko ba mooy priorité na bato bi tàmbalee milliards c'est trois bateaux hein mhm. il y a Aline Sitoé il y bo yow ñetti bateau yooyu. on ñaari doxul doxul ñeneen ñaari. ma ne ba bu ñuy taxaw. Hmm. ñoom ci li ma xam ñu ngi doon dox normal. mais moo tax comme ni ko ni ma ko ndaw si waxee day jékki-jékki rek ñëpp ak yeneen jamono ñoom ñoo jëkk arrêté sans cause ni explication. ah nan joxe explication yi nag. il n'y a pas d'explication. alors comme Alicité Diagne. il n'y a pas euh,